donc ñun yéenewuñ ko loolu mooy li may wax sànq nañ def ba réforme yi nga xam ñun ñun lañ Sénégal ñu ñëw ci loolu mm. changement bi dina mais nag buñ jël connotation là ça pose problème les priorités sont ailleurs donc nañ essayer respecter loolu xool koy procureur la problème na lijjanti problème procureur mais pas une question de APR de PASTEF yaa ngi dégg wax ñun déjà jëm te ñun xam nañ lañ jëm. ñu ni ñu ni hmm. déjà ñi les premières victimes de Diomaye yi les détenus politiques au Sénégal d'autres d'autres. non non euh, c'est une question de manipulation c'est une question de manipulation de d'une certaine presse te il va falloir tamit Sénégalais yi xam lan lañ bëgg gouvernement bu am mu nekk def état sax li nga deux mois. Hein? Ah, procureur procureur c'est pas pas le gouvernement ni le président de la république il y a une différence la séparation des pouvoirs existe il y a un pouvoir exécutif hmm. un pouvoir législatif et une pouvoir judiciaire donc c'est ce principe là qui permet au quoi le pouvoir judiciaire c'est-à-dire le procureur de la République de sous l'exécutif, exécutif ni le premier ministre donc dañ de respecter faire la part des choses yaa ngi déglu ma mm. justice da amul problème na ko lijjanteeg justice yaa ngi léegi nag bu ñu ci presse bi ñu bëgg ñoo yob ci lo xamné ni amu fi place moy lan première victime de Bassirou Diomaye Faye loolu ça pose problème déjà mom dégo, ba légui wa passé fi dali wala bien le gouvernement actuel daal di s'accentuer sur ce problème là parce qu'à un moment donné yéen waa Pastef da ngeen décidé woon que ni su bàyyiwul euh, di ngeen fajal seen bop exactement étant de étant de si réseaux sociaux lui lui wax Ousmane Sonko. mais lool day devenir une contradiction parce que gars yi ñu ngi wax naan Pastef déjà dañuy noyal bi ñëwee ba légui Cour des comptes kii fi génne ñom seen ñu leer ni amna ño ñoo ñi ngi wara a dem kaso ñu nga xam ne instant affaire bi doon problème de tëj ak ñoom seen priorité sont ailleurs essayer de respecter lool di mener une vie démocratique hein, dans une société bo xam libre et transparente moom lañ bëgg a yóbbu Sénégal hein. ñu bëgg a attaqué ci benn problème bo xam ne c'est localisé tamit. Ce n'est pas un problème entre le gouvernement avec un civil, mais c'est un problème entre la justice et un citoyen du Sénégal. Donc, on a essayer de contextualiser. Alors, euh, qui est qui demande une clémence, Imam Daou sàkku na pour Ousmane Sonko baalu ko pour pour Bal baalu Ousmane Sonko exactement alors euh, suite à cette clémence demandée est-ce que aujourd'hui peut-être nous assister à la libération parce que International aussi mi ngi sàkku pour ñu libérer non mais si góor lu ma c'est peut-être non loolu c'est pas une personne. réconciliation ngeen woote échange. Ah, mais xam nga ñun mooy li ma la li ñu wax ma fàllu ci li ma la wax ci lañ nekk ñun. yaa ngi dégg dama ne la def étude comparative entre le gouvernement et des citoyens.

ay avocat wax ci loolu ñu xol ñu ko ci jéem a génne mais bu buggee indi ne kii la parce que Ousmane Sonko est-ce que yëg na problème yooyu sa amul ko les priorités sont ailleurs. son excellence mooy loolu non dama xam ne dama xam ne moom dafa xam fi mu jëm. donc ñuy accuser Ousmane Sonko que est-ce que nekk ci ginnaaw. non ils font de la manipulation. parce que ñoom ay tuuma la non ay tuuma la rek xam nga yow déggoo ba léegi xam nga problème bi bi mu amee ba léegi déggoo ba léegi yi nga xam ne buñ génnee sax ci cadre gouvernement bi yaa ngi dégg déggoo ba léegi un militant de PASTEF boo xam dañ ko identifié wala un responsable de PASTEF bu ci wax ci cas bi kon mooy ñun xam nañ fan lañ cëp hmm. yaa ngi dégg la wax te ñun kenn ñu dugal ci détail yoo xam ne amul benn amul benn ampleur wala amul benn kii boo xam ne mën na koo indi ci réalité sénégalaise bi daal. alors hmm. alors donc c'est ça exactement mi ngi par rapport ak li nga xam ne que moo di euh, l' affaire euh, Bah donc nak mi ngi si kanam li nga xam que moo di le procureur ñi xadu du moment daal cette grosse décision bi nga xam ne abdou kar Diop dina ko daal di war a mën ni ma xam euh, daf koy acquitter wala kon ma xam nak koy yóbbu juge d' instruction di gëna a xam ne que moo di moom resec pour un éventuel. mandat de dépôt en tout cas par masse et juriste nag d' article 252 japp li nga xam que moo di 256 alinéa 2 bi jàpp ni dafa daal dal si kaw ki que donc ces chansons tout minime ki n'a que je euh, euh, ba pour mu par rapport ak la nga xam ne itam si euh, si wàllu exactement alors ñuy si kaw dans quelques instants peut-être que si bees dañuy ñëw si ki nga xam ne que le président Macky euh, pour Boubacar Seye Horizon sans frontières mhm. Tenu exactement lancé une pétition mhm. pétition de été la mais tay mi ngi si trois mille cinq cent ñi nga xam ni pour ñu rapatrier ki nga xam ne di euh, Macky concrètement mhm. alors euh, vu la situation des choses ban jàng nga ci def te est-ce que concrètement ngañ dem ba pétition bi paré ngeen pour yow pour yow en partant pour voter ko un membre de waaw pare naa fii je pense que c'est une question personnelle boo xam ne nii. waaw waaw moo ne est-ce que pare du ma ko du ko bëgg évoquer. ci hmm. ci plateau parce que ñun xam nga waa Pastef dañoo xaw a weex donc te yaa ngi gis dànk un cas isolé mu ngi am ci affaire boo xam ne c'est entre le procureur et un citoyen sénégalais. léegi ñu gis ne ñu ngi koy attribuer à Pastef. Hmm. léegi ñëw ci devant les. <clears throat> médias, di wax ci question yi day xaw mais personnellement peut-être seulement li ma ci mën wax dans la généralité mooy pétition bi contexte bal lañ ko lancé té lan waral pétition bi donc euh, on a vu que son excellence monsieur Macky Sall des allégations yo xamné ñu il travaille pour la France té ça pose problème. je mm. pense que dans ce contexte là nous avons lancé lancer pétition tu exactement pour yo lo war a poser problème en tant que le dirigeant des 4P. bon je pense que ni yo bo démé ba une personne bo xamné ni géré la haute autorité nga donne ko xamné ni nañ la ci administrer plus de 17 millions et quelques personnes donc je pense que c'est vu du point de vue international ou bien du point de vue bilatéral bilatéral day poser problème ñu dem ñu travail à un autre état je pense que ni lolu mom war nañ ko xol ngi ak mom parce que fu mu toll ni Sénégal mom xam nga wax fi dafa da ngay wax fii war contextualiser gars yi jël ko daal di orienter tes propos autrement mais moom parce que il a nous donné aussi tamit du point de vue sécuritaire parce que moom yor na données sénégalaises yi quoi parce que demoon na ba en terme de renseignement ak ñoom yoroon na ko. xamal nañu daal. waaw xamal nañu lu bëri bëri bu ñu demee na ba mu ngi liggéey ci beneen dëkk loolu day poser problème waaw loolu daal xam naa du point de vue formel ci foofu daal mun naa ci attardé wu daal di wax ci loolu. Hmm di xaar ndax da ngay yem ci ko wala bu dee da ngay dugal yooyu ñu demee ci fond bi aussi tamit. alors ñu dem si fond bi euh, ñëw exactement euh, ñaari raison la. Hmm. mooy li nga xam ne que moo di crime économique bi Macky Sall indi. Hmm. waaye itam ak crime contre l'humanité jàpp nañ dee yi nga xam ne te amoon ak manifestation yi et tant d'autres et tant d'autres euh, est-ce que ñaar yooyu noonu ay preuves yu valable la. pour mu daal di war a mën a poser lourd si table li nga xam ne que moo di Cour pénale kon ñu ko xolam pour am ko doon euh, li nga xam ne que moo di euh, prédire exactement. waaw fofu nak mo xamna naa ne dina dina jaar tout ñu leeral parce que. Mm. pour mu gëna lèr quoi parce que donul ne c'est le gouvernement actuel qui a posé cet acte là pour muy lèr té avant ñuy wax crime contre. xaar nañ si ba sonn gisuñu leen. voilà ñuy wax xaar nañ ci moy moy luma ma xam nga état bu ñëwé tamit. di def état des lieux gars yi dañoo yàqamti rek waaye dama ne la ñi fal ni xam nañ fi jëm. Mm. te ils sont en train de faire l'état des lieux donc on les permet de faire l'état des lieux de orientation et bu ñëwee nak ci li ce sont les crimes financiers yi nga xamné amna des crimes humains je pense que ce sont les familles de ces victimes là qui ont d'abord porté plainte et géré par qui par l'avocat Juan Blanco. Nous hmm. nous nag bu ñu pétition dans ce sens là nous ñu lo xamné ne nañ ko parce que il ñu la aussi tamit nga def qui tu as eu à administrer des citoyens durant 12 ans la moindre des choses c'est de rendre des comptes les nag na lay rendre compte loolu je pense que les l'autorité actuelle ne ci xool noonu gérer à ça à sa manière bon pour nag qui ci pétition bi nga xam ne ni nga bon ce sont des citoyens sénégalais aussi tamit am du ci droit hmm. parce que ñoom loi bi moo leen jox l'eau nit nak nag bu ñu demee ñu falal la jox la ay budget de temps de milliards voilà nous dem war nga waaw leeral bi nag bon ñoom ñu ngi def des actes citoyens c'est à saluer bon léegi buñ ñu jàppee ne war naa ñëw ni bon ñoom xam nañu fal la ñuy jaar te la loi nous la permet donc je pense que ni ci point boobu dinañ ko indi ñoom ñu xool ni ñu koy gérer à leur manière. là mais yéen ñu koy raay raayal boobu ba tey ak concrètement li ngeen diggoon sénégalais si li nga xam ne que moo di seen campagne concrètement non raay raayal non yow loin de là yow ñun boo ñu gisee sax xam ne Pastef du raay raayal. Pastef mënut a de deux 2021 à 2024 persécution bo xam mosul am ci monde bi hmm? ñu ñëw ba actuellement ñoo au pouvoir ñu dañuy raay raayal xam nga kuy liggéey. xam fi mu jëm tax lu ma tax c'est-à-dire manam vous n'êtes pas à l'aise d'aborder ce sujet je parle pas de toi mais quand même pas mal euh, rarement sax lu nga koy dégg lu koy dégg si yéen. tey hmm. ñëw nga leral que ni famille victime yi ñoom ñoo lancer